nabiyullah sha'nunoo azimun mu bayaanu والمصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا خد جلت نبي شأنه وأيام مبيان قديم مبيان والمصطفى المختار وهو المؤين نبوته قبل البرايا خد جلت نبوته قبل الجهالة قبل البرايا قبل ال... قبل ال... قبل البرايا قبل ال... قبل البرايا قبل ال... قبل البرايا قد انجلت لا تقحين الجد في دين يحسنا نجد المجد الموت ما من لا تهان مولا ومفدال مغننا ومولنا نفالي وإبقائي وفو زبلا أنا وفودي وفودي وفودي وفودي وفودي وفودي وفودي بلا أنا لكوني خديما خديم المصطفى تتبين نسيت في سري والجار لي بدت والجهل والجهل والجهل والجهل إلى غير ساق من ليس نفعل سوانا نفعل سوانا نفعل سوانا لسوانا لسوانا هل هل القهار نعم وهي القهار وهي القهار wa masna furada wa masna رب رب بيو بيو بيو بيو بيو بيو بيو بيو بيو وتركتنا لو يلدينا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا من يبقى في المدى فاكم رسول الله شكرا لك المدان مثل الورى نعمل نعمل مفال بالعيون كتبت لي فارس السنة وسكا كمان وبالإيمان والفرقة والإيمان بابا به واستغفر وخذ الشكر في مخاطبا لمن لمن الكلكل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ndeysaan yaram yëpp daw nañ yaram yëpp daw nañ Mouhamed waaw papa bu dëgg bu dëgg dee jib hmm. woy géwél bu jàngee rek mu sotti parce que feem yi mhm. ak li mu koy dugal dafa am solo dafa moom dafa am Pastef ci njàngam hmm. tubaarkàlla daf koo gëm mhm. daf koo gëm lool moo tax it gis te te wax laa na ni lii nag ab tàmbali la ah. tey tey la tey eh, tey gi rek la tey <laughs> waaye as goro ayca mënta muñ kàddu gu rafet mbay yaaram yow mi yaa baax wa atal bu yoo tamit abwaabiha bala maa nuyu kenn yow lay njëkk nuyu ndax yàlla dafa dogal nga yar samp sang sama nijaay jur ko alaaj Seex Sàmm muy màggat ki wajuram ak sa wajur sa ñaari wajuree bokk ndey ak baay kon yow yaay samp sang maa ngi lay siyaare mbay nga ko baax nag koo xam ne askan wépp lay sagoo mm-hmm. yow yàqoo ngéwél yàqoo titre géwél fi nga fekkoon géwél gi macha allah da nga koy yéege ca kaw beneen octave nga ko yéege yàlla na yàlla yàggal la ci darajee Xaadimu Rasuul maa ngi wolofal Sëñ Abdou Xaadir boo xam ne dama ko naroon a indi ko woy ba àdduna sépp dégg ko man baaxoo ma wax. waaye naa danaa ko woy ba àdduna sépp dégg ndax yow ñun géwél yëpp la bëgg maa ngi siyaare sama bokk yu baax yi mu fekk sëñ Cheikh Mbacke mu baax ni nga xam sun ñaari maa ngi bokk ndey bàyyi mu ko wax dëgg la sama xarit bu baax bi nga xam sa bi Mouhamed Mbaye léegi la sama murit bii léegi laa ko wax ni ko Assis Ndiaye ak baay ak Masata ak Babacar gàmmu ak Tiwaawan gu jot ñu ma dem Tiwaawan fekk leen fa ñuy samay xarit di ma ngir jëm yàlla ak yonent bi lu baax lépp benn la yàlla yàlla guddal sa fan soxna yi maa ngi leen siyaare baax di nuyu sëñ Fallou mii nga xam ni uh-huh. noo bokk lépp am na solo baax am na solo bu baax xam naa euh, ni mu duggee Mouhamed neex na lool euh, su ñëwaatee xam nañ ni ko mooy dàkk léegi nag laata ñuy dugg ci waxtaan wi euh, papa dañuy bàyyi rek moomoo mu maye jógati na moomoo jógati na moomoo nooy ubbee tey xale yi ñoom ñi ngi lay ñi ngi lay waxtaanee ci commentaire yi de dëgg la nee nañu yaa màgg ak ndaw ñi gunge gone yi macha allah yàlla na yàgg yàlla na yàgg yàlla na yàgg baabu naay <laughs> waaw et puis nee nañ moom ni muy ni muy sañsee ñoom daf leen neex ñoom ah, waaw macha allah. <laughs> waaw Pape <laughs> eh? Pape Pape Pape Pape Pape Pape Pape Pape ayca <laughs> donc commentaire yi euh, commencé na déjà gars yi ñoom ñi ngi teewlu bu baax a baax jotaayu GP bi ci sunu ay plateforme euh, digitale moo xam euh, Facebook bi ak YouTube bi yëpp donc ñoom kontaan nañ bu baax a baax ci jotaay bi nee nañ ñi ngi xaarandi waxtaanu Serigne fàllu bi léegi xam naa ni dootul dootul yàgg donc dañuy def lu gaaw parce que ñëpp a ngi bëgg teewlu fi mu ne nii waxtaan wi bu ko defee ñun ñëpp ñu ñu bëgg mën cee jariñoo parce que tey nag xam naa ne fi ñu dugg na ne. Mhm. dañuy maye trois cent mille nii trois cent mille francs la ñuy euh, maye. jox ko kenn ci euh, internet yi. Mhm. Euh, parce que ñoom ñi ngi teewlu bu baax a baax quand même. et puis di leen remercier bu baax parce que bi GP tàmbalee ba tey nag gis nañu ni ngeen di àndandoo ak sunu sunu ay programme donc kontaan nañu ci yéen bu baax. Mhm. donc dañuy dugg ci ci Facebook bi kii mi ngi tudd. Soxna Mati. soxna Mati Kan soxna matikan soxna matikan Kan soxna Mati Kan na moom euh, mi ngi teewloo GP depuis Njaareem nee na kontaan na bu baax a baax guddi gu jot euh, Sen TV ñoo leen di wettali moo tax euh, diggante Touba ak Njaareem ñëpp bégg nañu ci liggéeyu dee média bu baax a baax. numéro de téléphone am 77. 333 uh-huh. non 323 plutôt. 323. Uh-huh. 47 <laughs> ak li ci topp donc moom mun nañ ko jox trois cent mille bu ko defee mu euh, bànneexoo ko ci euh, jotaay bu neex bi bu ci kanamee tuuti dinañ dellu si waat parce que nag trois cent yi euh, du fi benn rek bëri na fi comme que nag ci dernier virage u koor gi la ñu ne fi ne nii ñi ngi waajal euh, bis bu rafet muy korite gi donc bëgg nañu euh, joxe xéwal gu bëri bu ko defee ku ci ne ci yéen mën a am lu mu korite ak njabootam donc ne ne mm. dama lay delloo bu ko defee ci kanam tuuti ñëwaat ci xéwal yi am naa Bakary am na lu ma yónni ci yow sax mais euh, <laughs> suñu wàccee naa la ko wax di la jaajëfal Momo di wax rek ne que ce deuxième passage nañ ko xaar ndax keneen koo gis ne que mu ngi partagé wala mu ngi aimé di nga ko teral te xam naa ay 300000 rek tey ngay génnee nag ah naa kontaan naa <laughs> kon euh, euh, ma dellu ci suñu papa Abdoulaye euh, suñu papa Abdoulaye mbay Père parce que il faut ñu dugg ci ci waxtaan wi ah ci ak kii di sëñ Fallou Galas Diatara